juróomi téeméer junni ci ay euro euh, mu jóge nag ci waa OMVG ak Sénélec ñoom ñi sekk liggéey gi nag daal nañ dem ca Tambacounda ngir amal fa réception matériel boobule. li moo gën a xës ci xibaar yi euh, ñu ñëw ak yéen nag ci yaatal euh, daal di tàmbale rek li nga xamante ne euh, moo di soxal njiitu réew mi jóge na nag Dakar tey ci suba si jëm ca Paris la France ba nag président Bassirou Diomaye Diakhar Faye war a fekkee forum mondial sur la souveraineté et l'innovation vaccinale maanaam ndaje bi ñuy waxtaane wàllu moom sa bopp ci lu jëm ci ñakk yi waaye war na tamit gisante ki di naataangoom eh, di eh, président bu réewum France Emmanuel Macron ak yeneen njiitu réew yi eh, bu muy dem nag ay kilifa yu nekk ci nguur gi ak ci l'armée bi ñoo ko gunge ba l'aéroport bu samedi bi nag la nara dëpp ci sunum réew ni ma leen ko doon waxee ci ndorteel gannaaw safaan yi amewoon fële ca Medina Gunaas ci bésub tabaski bi diggante ñaari xeetu askan ba tax sax mu am ku ci bakkam bakkanam rot nguur gi Sénégal daal na yónnee ab délégation bu ministre bu yore wàllu kaaraange réew mi jiite di général Jean-Baptiste Tine ñu demoon nag ngir rek amal fa seen njaal waaye itam ngir daje ak ñaari xalif yi jiite communauté yooyu le doon jotee ngir ñu mën a rek saafara li nga xamante ne moo leen boole Tidiane Cissé. ab délégation bu tàkku ministre de l'intérieur daal di jiite ngir ñëw fii ci Médina Gounass ginnaaw trouble yi fi amoon jour tabaski bi ba benn nit daal di ñàkk bakkanam ki nga xamante ne moom moo di xalif général bu Médina Gounass moom ci boppam moo ko daal di tëral balaa muy rafetlu mission bi nga xamante ne moom la jiite. Thierno wi bismillah hoɓɓe ɓe Thierno nee na monsieur ministre ak délégation bi nga bi nga ñu ngi leen di dalal ay gan ay ganam ngeen waaye tam yéen tam la yàlla dénk réew mi kon nag ñu ngi leen di dalal ci ñaari anam yooyu yëpp bu jiri naka fekkonte ne Sénégal réew mu baax la nee na suñu gaal ñu nekk si biir gaal gi yëpp la ñu bëgg mooy nekk mucc ci mucc ngona e jàmm haa ƴeemoya e jàmm ñi nekk ci gaal gi ci biir jàmm ba teer ci kaw jàmm ginnaaw Médina Gounass ministre de l'intérieur moom ak délégation dem nañ itam fi nga xamante ne moom moo di Médinatul Ouda ngir rek tase ki nga xamante ne moom moo di xalif général bi depuis démb ko gouvernement bi yëpp moo fi ñëw moo fi teew sous préfet sous préfet ko président o wonɗon président bi moo fane préfet préfet ko président o won bi moo fane président won président bi moo fane sécurité o sécurité bi ci boppam ko président o won ɗon président bi ci boppam moo fane teddini en neeno teral nga ko ko heewi yawti en ɗo lu bari paasena fii mbo woni sabu haa tey yaa nekk sabab gonɗi gonnooɗi ɗo hanki borongo ñi fi nekkoon démb mo fittani en tey yaa ñu ko fompal donc tey ci suba dama xëy euh, ñëw Médina Gounass ci région Kolda parce que ngeen ne après ci jouru tabaski bi amoon na ay jàppante yu fa ba ñu ñàkk fa benn bakkan moom du tolloog euh, ñaar fukki nit yu ci am ay gaañ-gaañu ñu ngi sant bi nga xam ne gaañ-gaañ yi euh, dégg naan nañ si bëre demoon hôpital génn nañu ñibbi nañu après dem na ziyaare ñaari xalif yi waxtaan nag ñoom ñëpp woo leen pour ñu wax xale yi te xale yi laaj xale yi ñu dal tàpp xol yi bàyyi xëccoo yeeg ñaayoo waxtaan bi euh, ci ambiance bu bu bu neex la amoon euh, ambiance bu bu détendue parce que tànku tànku seen jàmmu séeréer la la la dox tey euh, te loolu la njëkk a wax ne leen seen jàmm ñëw ñaan leen ngeen delloo si jàmm ci ci dëkk bi ñoom ñëpp vraiment ànd nañu ak man ci loolu nee nañu dañu woote jàmm. téye xale yi ci biir kër yi. ginnaaw mission dox jàmm bi ministre de l'intérieur nee na dina am ay waxtaan ci ñaari communauté yi ngir rek jàmm mun a wéy ci dëkk bi. Tidiane Cissé teg nañu nag xeer bu njëkk ngir mën a tàmbali tabaxu complexe polyvalent bu ñu jagleel euh, jigéen yi ki jëfe loolu nag moo di ministre bi jiite woon l'armée bi euh, di euh, daal ni koy def nag sànc ko fële ca cité gendarmerie bu Kër Massar foofee nag jigéen ñi dinañu mën a def seen ay yëngu-yëngu ñu mun di leen tàggat ci lépp lu nga xamante ne rek mën na leen jàppale ñu mën di faj seeni ay soxla Moussa Mané lañ ci àndal bii complexe polyvalent dañ ko jagleel tout tànk yi ndaw yi ak jigéen yi bokk fii ci cité gendarmerie bu Kër Massar tabaxu espace yi nag dafa bokk ci programme bu mag boo xamante ne ministre des forces armées moo ko taxawal lum ci jublu mooy yeesalaat cadre de vie ci cité militaire yu nekk fii ci Sénégal boo ñëwee ci complexe bi di nga fa fekk ay espace yoo xamante ne dañ ko jagleel ay fo ay espace formation apprentissage ak leneen li nga xamante ne dafa jëm ci wàllu maraîchage waaye tamit am na yeneen bërëb yoo xamante ne tamit am na solo bu baax a baax. le projet véritablement c'est un projet structurant et innovant su ma nee c'est un projet structurant et innovant parce que li ma gis fii madame Fall expliqué fii c'est la transition écologique. autrement dit les bons comportements yi nga xam ne ñun war nañ ko mën a am en tant que population pour gën a améliorer suñu dundin changer les méthodes et les façons de faire. ñi nga xamante ne ñoo jàppale waa ministère des forces armées ñooy waa fondation de la banque de l'habitat ñoom tamit indi nañu ay koppar yu tàkku ngir mën a tabax li nga xamante ne mooy centre polyvalent bile. ñeneen ñi nga xamante ne tamit ay partenaires te ñu jàpp ci liggéey bi bu baax ba ñooy waa institut des sciences de l'environnement bu université Cheikh Anta mu daal di indi ay garabu cocotier yu bëri ngir ñu mën ko saxal ci biir centre bi waaye tamit ci yenn gox yi nga xamante ne dañu bokk ci cité bu gendarmerie bu Kër Massar. tabax bi nag bu jeexee li ci gën a am solo mooy gestion ak entretien dëkkuwaay bi loolu moo tax ministère bi nag mu ngi ñaax bu baax a baax population yu Kër Massar ngir ñu taxaw ci bu baax a baax pour cadre de vie bi mu gën taaru saa su ne. général biram jóob nag bi nga xam ne mën naa wax ci moom am na ñu ma fi jiitu li ñuy wax sax mënatuma cee dolli lu bëri parce que sociale homme sociale la kilifa père de famille la daanaka dans les forces armées. xam nga mënoon nañu mënoon nañu rek nit ki bu libéré rek ñu fàtte ko ne ko débrouille-toi tu dans la vie civile mais deful loolu. loolu moo waral initiative yi mu jël nii te comme dooleem bariwul mu xool gestu ñi nga xam ne ñoo xaw a am tuuti doole ñu jàppale ko ci liggéey bi avec enthousiasme. ministre bu yor wàllu forces armées kii di général d'armée aérienne biram Diop moom bébétam mooy fexe ba jàppale militaires yi ak seen i famille. loolu moo tax projet bi nga xamante ne démarré nañ ko fii ci Kër Massar dina laal bépp cité militaire bi nga xamante ne mu ngi fii ci suñu réew. Ousama ne loolu am na solo euh, lool ngir mën a sàmm li jóge nag ci géej gi ak ci àll bi amal nañu ab ndaje ak ñëpp ñu nga xamante ne dañuy yëngatu euh, ci wàllu woowee lañu ci.